Euh, bés ma ko déggee am naa lu ma métti parce que au delà de la politique man lu ma seex ak DG lu sori la personnellement dama dem ba foofu gis dégâts yi kenn nettaliwu ma ko man maa dem ba dugg bi si kër gi xool dégâts yëpp euh, vraiment di ko ñaawlu c'est vrai que génnuñu pour def euh, vraiment une déclaration quelconque mais lu ñuy wax rek mooy loolu duñ ko nëbb ñun fii dañuy wax ni département de Goudomp ñun fii Souleymane Ndiaye la am Ndiaye mooy suñu DG moo ñëw am population bi di leen jàppale ak et wóor na ma ne xale yu def yooyu ñaaw yooyu dañ leen manipuler parce que gis nañ ah, <clears throat> ñu nekk dans les réseaux sociaux au nous ñu jël seen responsabilité parce que nit booy def dara da nga assumer nga dem toog nekk dans un pays comme le Maroc <clears throat>

Et nous devons dire ces jeunes-là que la politique a commencé. La politique a commencé au Sénégal depuis l'ère coloniale. C'est avant notre indépendance en 1960. Nous avons vu tout, amul lu fi xewul donc tey mënuñu fi inventé dara Sonko du extraterrestre nit nit nit rek la na xam jël responsabilité bu ko yoon woyé mu dem def lu muy def lu muy nek def ni di maire ne fi kenn du gis nga xam ne Dakar Hatna, na amatuloo benn espoir nga ñëw daw def comme un bouclier humain c'est irresponsable man je crois que parents yi sax na parents yi jël seen responsabilité yar seen doom doom boo ko juree doo ko mbalit bi bi ñun def jeunesse mais trop c'est trop Les jeunes yi vie et eh, eh, comme déjà nous ko waxee fii xale yaa que ne pas dëkk musula gis pour daf ko jar moom mu ngi yor ay doom lu tax andi mu ngi yor attitude responsable mais bon vraiment ça c'est de l'hypocrisie c'est de la lâcheté en tout cas lu ñu def euh, war ko def et man bu ma au delà de gâchis yi ñuy def nii di yàq kër jàmbur di toj xoolal suñu RN6 bi ñun fii lañ juddoo depuis bu ñu defaree yoon bi benn yoon lañ ko defar bii mooy ñaareel président Macky Sall moo def yoon bi depuis les années 70 lañ ko pour la première fois ñu defar RN6 Nous ngi toog plus de 40 ans kenn musu fi def investissement président am benn programme bu ambitieux avec le gouvernement américain Nous defal ñu benn yoon bu rafet bu baax en tout cas man dans ma commune dans mon territoire communal je l'ai dit à toute la jeunesse Mais leen ku fi lakk fii pneu si mbedd mi di nga ma lakk keroog et jël la responsabilité avec les chefs de village que nous ñun veiller au grain parce que c'est pas responsable loolu daal être citoyenne nous sommes le Sénégal c'est l'un des plus grands pays de la démocratie ku ne fait démocratie amul rek da ngay wax la neex maintenant démocratie du anarchie Fi anarchie nag lañ fi bëgg a installé je sais que état du ko nangu état Ken duko ko mabal état da nga dafa yor ay banqaas depuis 5 heures ngi fi ba dem Abdou Diouf ñoo dem Abdoulaye dem Macky tamit mu ngi fi bu yàlla ne dee dem Mom mo gëna xamni dina dem mais bu demul tamit bu ñu ñëw dañuy lak réew mi kenn mënu ko lak. Macky légitimement légitime peuple sénégalais moko élire et mu fi tant que mandaam jeexul mu ngi fi et conscient lu mu wax tam dafa lèr. on n'a pas besoin d'être un juriste pour lire ce paragraphe là sur l'article là lu wax dañu le mandat de juróom Atla. Personne plus de deux fois mais loolu lu la le débat qu'on posé et puis nous, ban force nous pour ne débat qu'on imposer à un candidat sortant kenn mu imposé. imposer conseil constitutionnel moo ñuy lif ñun mais jarul ñuy taal fii suñu et les irresponsables ñu koy def amuñu benn responsabilité fii lu dul di yàqal ni ni en tout cas loolu ñu ngi koy ñaawlu tey ñu ngi koy lu suba. il